sama paat sama paat sama paat assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu dañu am guddi gu nekk muy guddi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa doon koo xam ne buñ bëggee wax ci bisam dañuy fab sëriñ tubaa andi ko rek xam ngeen daraja yi yàlla jox sëriñ tubaa ak fi Serigne Touba teg Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek doy na waxtaane Mouhamadou Rasulullah ci guddee bi sunu waa jooju sunu jàmbaar jooju moom sëriñ tubaa fi mu tegoon Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doy na. ñu xam kanay muhammadu rasulullahi te xam guddi gii nan la toll am na ku ma nettali ne li tax sëriñ Tuuba boo masaa suukar da koy natte ci bant la koy natte day fab bantam fab ko def ko ci attaay ji bu liddi ko mu ne ah kon de saf na waaye suukar safatul ci moom ñu ne ko loolu lu ko waraloon mu ne bëgg muhammadu rasulullahi saf gu ma safa tax dara safatul ci man ñu ne ko aha mu ne man dama bëgg rasulullahi sallallahu alayhi ba boo tuddee muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba dënnam ba da ngay njëkk a dégg nekk na fi barab di tagg muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku baax ku tedd sëriñ Balla Dieng Faali wut xaalisu boppam bu ko lew dem jënd ci ay yére ñawal sëriñ bi turki dara ak dara ak tubay ak kala ak dal bi mi ñawal sëriñ bi mummi day japp di jang alquran bu ñappam toje da koy yeesal ci la ñew mu ba mu mu egg mu yanu mbub mi andil ko sëriñ tubaa xaajim rasul lo mo sa jox sëriñ tubaa nak ci mbub mu bes daf koy def ci ndox waye kérok bi nga xamé né sëriñ bi jox sëriñ sëriñ Touba da koo sol lu kenn mus sa gis sol ko te laalu ci ndox ndax moom lu ne day wax ak moom tàmbali nag di yéem mbubb mi di sant sëriñ bi ba mu yàgg loxoom dugg ci jiba ja mu ne ana lii luñ ci jublu am ko fa nekk daal di bëgg mbubb ma lool tax mu ne ko ah, nun de mbàkke bu doon nun amee sunu dërëm dañ ko ciy def ba mu ne dërëm ñu ne waaw Serigne Touba def na sumeet mbubb ma dal ko ne taxañ taxañ dal ne xër mbub ma dal na yàlla na nu yàlla mosal ci jiba ah jiba tolloo naa ko bu xol de jiba tolloo naa ko bu xol de boo ci defee dara taxaw sa digg ak sa boroom mu yëngu leneen nekk fa lu dul sa boroom yàlla na nu yàlla mosal ci jiba nekk na fi barab di tagg muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boo ko joxee ab dërëm du ko laal day wax tegal foofu boo ko joxee këyitu xaalis Sëriñ Tuubaa day wax tegal foofu du ko laal day mujj paset yi day def ab jàll këyit yi day def ay ab naaf mu bari lool day gas ba mu xóot mu dugal ci xaalis bi suul ko wala mu jox ko tubaab yi wala naar yi waaye am na bis muy tagg muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg porox ndollu am ci néeg bi ngelaw di fa jóge di naawal kayit gi mu doon tagge muhammad rasulullah ci la sëriñ tubaa soo ko def bërët daldi def nëq ci kayitu xaalis bi dugal ci bën bëni néeg bi di def noox noox noox noox am mag mu fa nekk daldi ree mu ne ko looy ree mu ne ko àmbàkke ah, wuuteeg yow xalaat ci lii rek sëriñ tubaa daldi muuñ ne ko na noo ci yem xalaat ndax lu ci waaye am lu mu bari bari fàtti buntu rek la koy doyee te man de bunt bi bëgg a yàq li may liggéeyal muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam benn bunt gënumaa ñor ci fatt ko koy sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul suñ jàmbaar jooju nekk na fi barab réer nit ñi ay gone yu nekk ci ginnaaw per ma tolloog sëriñ Tuubaa fa mu nekk benn xale moo for weñ gi ñuy wax rasul daat ne moroom mi for naag rasul bi mu ko defee Serigne tubaa ci la daanu ba wax mag ñi ne leen nañ ma seetal gone yi toll barab sàngam nañ ma wuy si waaye bu ñu ñëw buñ fa bàyyi lañ for bi jagsee Serigne tubaa daleen di yalwaan liñ for na leen jaay leen ma ko bu ngeen ma ko munta may di nax gone ya di leen neexal ci xaalis di leen neexal ci ay kado ba xale yi jox ko weñ ga ba mu ci sottee sikki si ba tàmbali ci barkeelu bi mu ci sottee parfum yi ba tàmbali barkeelu ci weñ gi bu du woon xam ngoo xam sëriñ Touba bu la mayee mbubb ma doo ko soxla ndax xumaag ya keroog lañ noppee gis weñ ga ba nit ñi tàmbalee di yéemu mu ne naxam moos day dara tënkuma ci lii lu dul lu dul tur bi rek xaw a nuur gi rasool rek <laughs> sun waa jàngo moom sëriñ bi dafa wax ne man de damaa bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa ba dara neexatul ci man woote na njaaleem ci bis bu jege bi su gàmm wax sëñ Malick njaay bokk na ci ñi ko daa jottali Malick waxal fere yi na leen ginnaaw tisbaar dama leen a bëgg a laaj ma bëgg ñu génn ci bitti te xaar ma ndax dafa am lu ma ñor lu ma bëgg leen lu ma leen bëgg a laaj sëñ Malick njaay génn ca biti dal ne ku baax ku tedd ki nee na dafa am lu mu nu bëgg a laaj nan génn ginnaaw tisbaar ñëw ci Serigne Touba ne ko Mbàkke yéene naa ko ñu ëpp yëg nañ ko Serigne Touba ne ko dellul mu delluwaat yéenewaat ku baax ku tedd ki nee na ginnaaw tisbaar dafa am lu mu nu bëgg a laaj del si waat ci Serigne Touba ne ko yëgal naa ko ñu ëpp mu ne ko dellul mu del si waat yéene ne ku baax ku tedd ki suñu yaakaar tey ak ëllëg nee na nan génn ginnaaw tisbaar ndax dafa am lu mu bëgg a laaj del ne ko mbàkke ñu bari yëg nañ ko Sëriñ Tuubaa bu daa génne nit ñi dafa bari woon teraanga lool ker garab yi ataaya suukar ak kafe lépp ci ker gi tablay ataaya jaa ngi nii tablay café yaa ngi nii kafteeri café yi ñuy segg ñi ngi segg ay muquraas muquraas mooy wej ñi nga xam ne day lëmbu gudd ba noppi sëgg matum njalamaan yi la ñuy taal ci suuf fab satala gi wékk ci ci lañ daa tàngale ndox satala yu bari lool biñ tolloo ci bax la sëriñ tubaa suñ waaj a egsi toog toogi nam wow nga xam ne fu mu nëf sa yàgg na lay toogee ana malik mu ne ko maa ngi nii mu ne ko Malick Ndiaye mu ne ko Mbacke mu ne ko Malick laajal ma fare yi ndax bëgg nañ ma sët sëñ Malick Ndiaye daal di suñu yaakaar tey ak ëllëg xaadim rasool nee na moo nuy laaj ndax bëgg nañ ko wala déet waaye bi sëñ Malick Ndiaye eggalee laaj bi satala yu baax yépp gaa yi dañ koo jël naan sët satala yu baax yi gaa yi laaj bi daa rëy ci ñoom ba satala yépp gaa yi dañ koo naan ñu amut satala di di dañ garab yi yuuxu yi jib mel ne baas bi rek malik mu ne ko Mbàkke mu ne ko nee leen li ñuy def ma nañ ma tontu ci li ma leen di laaj sëñ Malick Ndiaye daal ne suñu yaakaar tey ëllëg nee na li ñuy def ñoru ko nan ko tontu ci lim nuy laaj nee na ndax bëgg nañ ko ñu ne ko Mbàkke yemale woon laaj ku yàlla bind ku yàlla bind yaa nu ko gënal yàlla mus sa wàcce ku koo xam ne ni la bëgg bëggee na mu ne hu Malick mu ne ko Mbàkke mu ne ko man de bëgguma leen ñëpp ne xaram mu ne Malick mu ne ko Mbàkke mu ne ko nee leen bëgguma leen mu ne ko Malick mu ne Mbàkke mu ne sama xol bii dara da cee xaju loolu yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ne cell ab biir mu daal di muuñ ndeysaan daal di muuñ muuñam googu ne Malick mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax li ñu wax dëgg la bëgg nañ ma mu ne ko mbàkke yemale wuñ laaj dara mu ne hmm, kon de am nañ ndimbal <laughs> ndax man day man sëñ Bàmba bëgg naa yàlla bëgg yonent bi di leen liggéeyal ba àdduna lu ma fi soob mën naa ko àllaaxira lu ma fa soob naa ko ku ma bëgg dimbali àdduna mën naa laa dimbali ku ma bëgg a dimbali àllaaxira mën naa laa dimbali <laughs> ah waa jàngoo ku ma sa wax loolu Malick waxal fere yi na leen ku ma bëgg dimbali àdduna man naa ko ku ma bëgg a dimbali àllaaxira man naa ko waaye waaye déglu leen nag foofu la yëf yi ne waxal fere yi na leen ku ne mbëggeelam nu mu toll ci man ak pas-pasam su ma koy dimbali na la ni man lay toll Malick mu ne ko Mbàkke mu ne li ma mënut mooy dimbali ku ma bëggul Sëñ Tuubaa ngoog kon nag taalibe yi xanaa loolu nañ ci fi xool li maam Thierno wax nit day bëgg Serigne Touba kanay Serigne Touba kala yàlla booleeg moom. Serigne Touba ngoog doon jëmm joo xam ne bëgg yom Muhammadu Rasulullah rek moo ko teg li ko li ko li ko dal mënoon na bu fekkoon ay mbiram ci boppam la yam du sonn bu yamoon ci ak njabootam du sonn waaye ba mu bëggee Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la doon waxanteeg yàlla ci bëgg gu mu bëgg Muhammadu Rasulullahi ak lu mu bëgg ci xeetam wi ba yàlla teg ko yanam bi sëriñ Basiiru nee na sunu waa jooju day moom muy Muhammadu Rasul muy muy Muhammadul bàmba xaadim rasulullahi nee na dafa ñëw jamono doon ab liggéeykat nekk jaamukatub yàlla nee na di jaamu yàlla nee na di wérd ba mu yàgg yàlla delloowaat ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doonte mu fi caa génn ne ko fu teet abwaabuha jàppal ci Muhammad ku jàpp ci Muhammad egsi nee na Serigne Touba daal di jàppaat Muhammadu Rasulullahi nu ko kenn jàppewul nee na daal bëggaat nu ko kenn bëggewul daal nekkati Muhammadu Rasulullahi daal def alxuraan wirdam rek tàmbali tagg Muhammadu Rasulullahi mu koy may mu koy liggéeyal mu koy fay nee na yonent bi di ko fay ba mu yàgg fi mu ko doon fayee mu xool dara nekkatu fi. mu di ko tagg mu koy may ba mu yàgg fi mu ko doon mayee dara nekkatu fi fi mu ko doon fayee dara nekkatu fi fi ko doon mayee dara nekkatu fi Sëriñ Tuubaa nee na keroog laa gën a sawar ci tagg Muhammadu Rasulullahi ak liggéeyam ma di ko tagg rek te xam xam ngeen nag bu ngeen bëggee xam taggi Sëriñ Tuubaa da xool Buusayru ak Kahf ak Ashar nga xam ne kenn ku ne am nga ci Muhammadu Rasulullahi loo xam ne dayoon na koo xam ne sa loxo dafa dagg amatoo loxo ngay tagg muhammadu rasulullah ba yàlla saxal la loxo loxo buurus seeta lool waaye nee na ñooñu dem naa ba gétti leen ba sama tagg seenu tagg asaka la ci sama tagg <laughs> nee na bi nga xamee ne maa ngi tagg muhammadu rasulullah muy lox ah sëñ Tuubaa fan la jaar muhammadu rasulullah nee ma di ko tagg rek muy lox ma di ko tagg muy lox ba mu yàgg mu nit bërit ne ci sama loxo bi nekk fax ak man ba fi kanam saa borom sëñ bi siroo ko nettali saa baay ci kendal lu mu ko kendal mu nettali baat ma nee na bi mu téyee ci loxol Serigne Touba fax ak moom ba fi kanam yàlla bu ne dar fi kanam yàlla ne ko ah sa jaam bii sa liggéeykat bii sama jawriñ ji liggéeyal na ma ma koy fay mu may tagg ma koy may ba desel ko borom tagg ma bëgg nga fayal ma ko yow mi dul jeel yow saa borom te mayal ma ko <laughs> lu ko yàlla wax déet déet yow Muhammadu Rasulullah doo jeel fi ma nekk kaay fii dul jeex ma jàll feneen <laughs> amul moroom xaadim rasulillahi mboolem sëriñ bu ko def maa seen na sàkk ku ni maam Cheikh Anta ak Cheikh Ibra Fall ak maam Thierno Ibra Faati ndaamal daaru nu gis Sering si yéen ini ngi nii tee ngeen a te dikk def ni nu def jebal ko seeni kurus da yokku diine di ful wërsëg di guddalu fan di fek lor ak kër ak tartar ku weddi ya na mos ku weddi ya na mos sunu bamba ji ku mos moseeti ya ko ngir sukar la waju ko mos mosal bul faale yow ko la khas ku bambay góor gi demoon doju ngor def fa ngor wax fa ngor dojoo ngor deful ngoree di fa ngor sa maasum baay dëggu jógal ànd sa jëm te dem làmbar na del si nu gis mboolem mur yi mu àndal rek noo gën sëriñ sa woon xarit rasulillaay Cheikh Modou Kara sa maam ya mu àndaloon rek ñoo gën sëriñ sa woon te bu bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la woon ku not gaynde not segg ak ma far ñay mu daw du soowoo ki bay noppil te wéy yàlla gis na la xaadim rasulillaay ku lay def moroom it xam na xëll na yaa man lewet gi waral ñuy dendandoo waaye noonu la Sëriñ oh. oh. Basiru nee na bi nga xamee ne nee na muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na saabaroom borom fayal ma jëmm ju tedd ji te mayal ma ko ndax dama ko amee barub tagg ak barub liggéey ne saabaroom borom ne na wax na xaadim rasul wax lu mu bëgg ma def ko ku mas a am loolu ojaasu yàlla ojaasu yàlla boo ko waxee nag gaa yi nga xam ne gëmuñu Serigne Touba weddi ko waaye ku xam Serigne Touba xam ne suñ ko waxee dëgg la audience boo xam ne muhammadu rasulullahi sëriñ bàmba ak yàlla yàlla ne ko waxal loo bëgg ma defal la ñu di ko déglu déglu yàlla di ko déglu ak yonent bi seetet ay waaj yi xam nga lu mu waxa dana wël bit daal ne kat yi muhammadu rasulullahi fi kanam yàlla ne ko awma genn bëgg guddul kii gaa yi bëggewuleen ma noonu kat kenn ku bëggee noonu Serigne Touba moo na gën a bëgg sëriñam de buurub àdduna buy jeel buurub àdduna buy jeel képp ku ci amoon nag moom ojaas mu ne la waxal loo bëgg ma defal la ko nga fàtte sa sëriñ buur bu toll na yàlla du jeexal ne la waxal loo bëgg ma defal la ko nga fàtte sa bopp fàtte àdduna fàtte say doom fàtte alaaxira dal ne wël bit dal ne kat yi Muhammad rasulullahi ne ko aw ma génn bëgg gudul kii ndeysaan. Cheikh maasum kenn ku mel ni moom dootu fi feeñaat fenn doy na nun ba fa kanam yàlla nan tuub ca topp ko jaamu yàlla ku am ku mel ni Seexu Bamba gañe nga ku ni Seexu Bamba gañe nga ku ni Seexu Bamba gañe nga doy na nun doy na nun ba fa kanam yàlla nan tuub te topp ko ci jaamu yàlla. ndeysaan ku mel ni Cheikh Bamba gañe nga. ku mel ni Cheikh ku am ku mel ni Cheikh Bamba gañe nga. ndeysaan jërëjëf ndeysaan ndeysaan jërëjëf waaw. sëriñ bi nee na. bi nga xamee ne saa borom nee na ko waxal. na wax lu mu bëgg ma defal ko ko. daf ne walbit daal ne kati Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom si Ahmadul Xadim sëñ Bab ma ne. yàlla awma genn bëgg guddul kii rek loo ci bëgg nag déggal nag foofa nag la mbir mi tàmbali loo ci bëgg mu tàmbali wax <laughs> sëriñ Basiiru nee na rëdd wu sëriñ tubaa rëdd saa ne ko dees na la ko ci defal ci sa ngërëmul tey li mu rëdd mu rëddaat <laughs> maa bëgg bu ëllëgee gis naa mujjug jamono allah ji day bari gaa yi aji rek bëgg turi Muhammad yi bari lool tànt boo dem Muhammad moo du yaa fa ëpp bëgg rasulullaay lool xol boo xar fekk ca rasulullaay waaye maandu gu leen yóbbu àjjana amul jaamu yàlla gu leen yóbbu àjjana amu fa ma bëgg sama ngërëmul tey lii nag yaa rasulullaay saa mi la moom te moom ma defal ma ci bu ëllëgee jullit bu góor bu faatoo nga tàbb mu tàbbal ko àjjana bañ a xool ci moom dara dara dara dara dara dara <laughs> loolu moom xam naa ne faaw nag mu am yeneen affaire yu ci topp mag mu toll na yàlla wax ne ku ma jaamu yàlla mu yóbbu la àjjana ku ma mooy ma yóbbule la sawara nga taxaw ne ko damaa bëgg bu ëllëgee ci sa ngërëmul tey lii nga defal ma ci lii saa borom ne ko ah neel sa waa ji nag loolu moom <laughs> deesu ko ci mën a def ci ngërëmul tey lii déedéet mu ne ko nu may def ba nga def ko mu ne ko ñëwal ma wax la li nga xam ne soo ko defee ku la sopp bu ëllëgee ma tàbbal àjjana fu ne Sëriñ Tuubaa wax na ko tuuba li abdin muridin saadixin lahumoo bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati jërëjëf sëñ Touba sëriñ bi nee bi ma waxee loolu saa borom mu ne ma kaay ma jaay la ko loolu dama koy jaay du ma ko mën a maye mukk du ma ko def ci ngërëm li <laughs> ma ne ko bisimilaay jaay ma ko mu ne ma ko mu ne yonante bi nee ko dinaa ko teg ñaar téeméeri yëf ak juróom-ñett fukk ak juróom mi ataani wa xamsun wa samaanoona ci ay natt natt bu ne mën naa génn ruu ci biir yaram bu ma koy def mu ne rek na jàpp ne mën na caa des ci num ciy dese ndax dinaa ko teg loo xam ne ruu gi war naa mën a dem mu ne ko ah nooy def ba du dem mu ne xanaa su newul is su is rek su wax su wu wóoy bu newul wooy lu metti metti roo gi dinaa ko téye waaye day metti de lu ko gënale ak nit ñi ñi ma ñi daa jaamu yàlla yi ma daa nattu sëtt mu ne ko soo ma yàlla ma jël sa bakkan ci bés bi ci saasi soo demee ba namm sa njaboot gi bëgg a dellu senegaal ci sa coobare bis boobu ci laa lay lor li ma li ma waxante ak yow ci laa koy xàcc wax ba mu bari lool mu ne ko nañ ma ko teg ndax man day bëgg naa jëmm ji te bëgg naa waxeetam moo tax Serigne Touba mënuñu koo fay surtout nee na yàlla waxante na ak Muhammadu Rasulullahi yonante bi nee na yedd na ma liyaar na ma waqante na ak man ngir bëgg ma teggi ko te ñan ma leneen loo xam ne dinaa ca mën a am la ma bëgg leneen waaye bokkut ak lii ma bëgg nag. ne ma ne saa man daal yan bii laa bëgg ku ma ko yan ne yàlla laaj muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax yan bii attan na ko mu ne ko ruugi day laa yorut waaye jom ji ak pas-pas bi loo ko ci teg attan na ko nee na saa borom ne ko day su fekkee nëmul njabootam ci tukki bi ndax duñ ko defee liñ koy defee fii Sénégal déedéet dañ ko fiy jële génn ko bitim réew ñu yàq yërmaane yor ko ñu soxat ci moom te bañ ko ñoo xam ne bis bu set ñu ko def lu ne mën naa génn ruu ci biir yaram buñ ko koy def nag day metti lool waaye du wonk bu wonkee rek ne ko xàcc naa mu ne su fekkee dees na ma ci defal lii ay ca <laughs> ay sunu waaj bu fekkee bu ëllëgee dees na ma ci defal lii ay ca ah bisimilah ay ca yàlla ne ko ay ca kon ñu daal di signé signé walla walla man naqulu wakil sëriñ bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di participer ne ma dinaa participer sëriñ Touba nee na ma di ko déglu lu muy participer mu ne dinaa fexe ba luy ñëw ma wax la ko suba daal nangam lañ lay teg nangam lay mettee kese rek. <laughs> ay waajil sëriñ bi nag nekk fii nekk fi ak baayam ak i nijaayam yoo xam ne yàlla rus na leen ci gàttal rek ma tënk baayam dem. mu tàmbali am ay nattu ci ay sëriñ sim dëkkal am ay nattu ci buur yim dëkkal booba Lat Joor moo fi nekk nekkoon wala réew baayam baayam nekkoon xaadi di atte def ko ragal yàlla ku maandu ku baax Lat Joor doyloo ko bi nga xamee ne Maam ant Anta Sali làqu na nag mu bëgg a fecc fasante ko la rek gëm fasante woon nag Maam ci Sëriñ Tuubaa woo ko nag ci bisub dëj waxante ak moom masla ak moom modalante ak moom jox ko alalam ba mu ko joxee alal ji ne ko dama koy jaale sa baay mu dem yët ko ku buur ameloon bor ci jataay bi ku Lat Joor ameloon bor ci jataay bi sët <laughs> ay sun waa ci xale bu ndaw nag waxanteeg moom fasanteeg moom kóllëre ba koo def xaali sëriñ bi di ko daw ñu di ko yàdd ne ko yow kii sa xaritu baay la woon mu defoon nga xaali mu am jàmm am teraanga mu bëgg laa def buur loo ci mu bëgg laa def xaali lan ngay daw mu ne leen kudul yàlla kudul yàlla doo sama buur te kudul yàlla dama lay daw boo dee buur dama lay daw ñu ruuxale ko ak Lat ndax booba sëriñ si jaaxle nañ xaati ndax sëriñ Tuubaa nit ñi dañ koo bëgg buy dem mbooloo topp ko fu nekk mbooloo ne fa lu mu santaane mbooloo bi def ko am ñoo xam ne jël yii ngeen di def dañ koo tàmbali ci saasa di dañ ay garab di dóor ay kuur sëriñ si rek defe ne lii bu jàllee ñoom duñ jàll lu <laughs> dem waxale ko ak Lat Joor da ko ndoom mi Momar Anta Sali ji woo ko nga jox ko ab toroxalam mel na rek kuy wax ak Kara man may wax ak karaa Samb mi ndax day sa baayam sa xarit la woon waaye moom bugg la te keroog ba nga koy jaal wane na ko te yàlla boole na ko ak i nit yoo xam ne su fekkee woowoo ko te toroxal ko te yemale ko fi mu jëm ak yow ndox du fa ne nu bëggoon nga woo ko te woo sëriñu su mbaakul si yépp si la jaxate jaane ak ture looy def nga def ko ci seen kanam ndax ñoo koy jàppale bu ëllëgee dana ci am ñu ko jàppale bu ëllëgee Sëriñ Tuubaa nee na ñu jox na ay convocation yoor yoor boole ma ca waye ci suba gi neena ma galankor sama digg ak borom ba munuma wujj neena na diggante tisbaar ak ci la soga mana wujj ci la amee digalul sa borom ne ba ma dikkee ba jub leen fekk sëriñ ci tok neena ñi ngi def seeni wóom ci suuf ni la jot tok ci kaw ne bi ma leen jubé ma ngi yor ab tax bima yoré ab tax def ci nox japp bu nopi jullu ñaaru rak seulmal ne bay diw ci mbolo mi wax ma lu joonu dal may wong lan la ma wax ahmadul xadim muhammadul mustapha lan dajale fee yaa ko wax ku fa nekkit sa kilifa la ndax say baay rekk fa nekk ak say sëriñ ak say mag ak say nijaay ñu woonu ci suba nga bàyyi ba tisbaar ngay wuy si ñëw ba julli nu nga ne da jullee te julli woo tisbaar ndax tisbaar jotagul julli woo tàkkusaan ndax tàkkusaan jotagul daal may wax lu juunu daal may wan waŋ mu metti waaye nee na ma ñëw ci Lat jor ndax booba Lat jor moom xelam xalaat na lu bari nee na mu daal di ma fa ma fëgal wax ji daal nu yewi ju dem <laughs> waaye bi mu jógee ci Lat jor nag dugg ci tubaab bi ci gàttal bi mu duggee ci tubaab bi nag ñu tàmbali def seeni pexe ak seeni tuuma tuuma yi bari lool am na bis boo xam ne la dem Dakar la jëm ki ma nettali nee na yoon woow yi dañ ne woon ci la koy waaye tiit na njàqare loo xam ne du ca bés ba mujjut sotti maam mi ngi ànd ak maam Cheikh Anta Gaawaan maam Cheikh mi ngi ànd ak géwélam bu ñuy wax ma tabara mbaay buñ duggee ci bureau bi ba jàkkaarloo góor góornóor mi ngi mi ngi taxaw ay gardeem taxaw yor ay fetale ki malagulu sëriñ bi nee na bi sëriñ Touba eggsee dafa na wël bit wan ginnaaw góornóor fab der bi mu yoroon teg ci der bi daal allahu akbar julli ñaaru rakk rek sëlmal asalaamaaleykum matabara mbaay yooxu <laughs> ba góornóor pilim yi mu yoroon dafa tiit ba mu rot mu def ni géwél def moom ma matabara mbaay tagg juróom-ñaari maami Serigne Touba. Serigne bi nee bi nga xamee ne matabara mbaay yooxu na tagg juróom-ñaari maami Serigne Touba fa loxoom ba teg ci jël Serigne Touba ba ah Mbàkke fi njëkke de ne ko ah Mbàkke yaa fi njëkke de fii de Mbàkke góor gu fi mas a taxaw soo ma romum góor tax na nga fàtte sa borom ah Mbàkke fii de mel na yow rek yaa fi mas a taxaw fàttali ko sa borom nee nañ Serigne Touba loxu na nee na kat kat kat kat kat kat làmb ndey jooram amul jiba <laughs> mu làmb càmmooñam amul jiba mu làmb dënd ba amul jiba mu gëdd maam say ant ne ko seex mayal ma mata bara mbaay <laughs> mu mbay ko mu ne ko dolli ko mu dolli ko mu ne ko dolli ko mu dolli ko ba mu yoon maam say anta muuñ mu ne ko seex looy ku koy def ku ne bëgg na ko ko wax <laughs> yàlla moo ne wa amma bi mat ràbbi fa adis te la in sàkkatum la asidaanakum ñu daal di jóge ndar def seeni pexe dakaar boole nañ ko gaynde yóbbu nañ ko ndar yóbbu nañ ko Louga boole nañ kook aw nag def seeni pexe nag léegi génne ko Sénégal ci gàttal ndax taa bi day bëgg a dem seen bi nee na bi nga xamee ne nag dugal nañ ma ci gaal gi nee na ma tàmbali tagg muhammadu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ba egsi ci muxaddimatul amla bi ma egsi ci nabiyun rasulun xayru abdun wa saydun xalilun habibun misluhu laysa yu'lanu nee na yoonante bi ci lu dul gént dana kar na ci sama wet taxaw wax ak man ne ma lii de yaa ko njëkkee génn la sam réew taqale la ak sa njaboot cam leer na la ñuy seeni pexe bu sottee doo delsi teloo fi lu dul di ma tagg waxal loo bëgg ci sa tagg wi ma defal la ko ma ne ko tagg buñ la ma sa tagg te nga nangu ko nga defal ko asaka sama tagg wi nga fayal ma ko xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ne mu yonante bi ne ma nangul nañ la ko ne ma jullu ñaar rakk sëlmal ne yàlla yónni jibril alayhi salaatu wasalaam ne ma saaboroom nee na waxal sa ñaari ràkk yi loo ci bëgg ma defal la ko jëlee la sam réew dàqale la ak sa njaboot ne dañ lay sànk bi ngay julli yàlla nee na soo ñaanoon dellu wala nga ñaan mucc ci gaa yi lii mu lay bëgg jox du la ko jox waaye dafa gis danga doon jaamu yàlla rek waxal loo bëgg mu defal la ko nee ma ne ko xanaa julli goo ma sa julli te nangu ko defal ma ko mu nekk asaka sama ñaari rakk yi nga fayal ma ko xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaye rek bi yonante bi sallallahu alayhi sa sallam deme jibril alayhi salaatu wasalaam wan ma ginnaaw am na benn telex bu dugg ci biir cap gaal wax capitaine gaal gi jëmm ngi jooju joo xam ne ju naa féq la jëmm ju triangoog jëmm ju luuboo ngoog jëm ju bari njabara ngoog joo xam ne am na ay nit fexe ba du ñu dee dañuy dañ ay bant te duñ dee ak i garab di leen exploité nun dañuy bëgg impôt duñ ko mën a am ñoom ñu dem di ko jox li nu waroon a fayal impôt nu bëgg nag loo man ci moom ci ay jafe-jafe ki metti metti nga defal nu ko nee na si tuut ñu jëlee ma fa nee nañ ma fa jëlee bu doon senegaal gii ñu ma bëgg ger ger dekki ay ndaw yu am kattan ñu yor ay malagulu ñu yor ay fetal ñu yor ay yar ñu jële ma fa jëlee nu doy waar nee ñii ñu ngi may dóor seen dañu fetal yi ñii di ma dóor seen malagulu yi nee ñii di ma bëmax di ma daaneel di ma pamti pamtee jëmami ci barab bu doy waar ñi ngi may yéjjee naa ma ana sa wilaaya gi yow kay boo amee wilaaya wane ko waaye nee na du ma leen yëguma liñ may def bay fa ba bay fayantoog ñoom <laughs> nee na li tax yëguma ko nee saa baram daa yónni jibril mu ne ma pamti pamte jii ñu lay pamti pamte nga mënoon ko faj te fajoo ko loolu mooy tax bu ëllëgee sa taalibe bu taxaw bis penc ci kenn du ko pamti pamte sëriñ bi nee na ñu dugal ma ci barab barab bu metti bu sobewu boo xam ne ay rab lañ fa def ak ay Quran ak ay paaka sëriñ bi nee na bi nga xamee ne euh, sëñ Touba dugg na ci biir bi mu ne tegg tànkam bii bu ndajoor bi rab gi dafa génn ci bitti dafa génn ci bitti tànk bi waaye xoolal suñu waa ji xanaa bu doon mbay njaay day teggi xam nga dum def teg beneen bi boobu génn ci bitti ci sama yaram bi def këtëj këtëj këtëj këtëj seet nee na mënumaa sujjóot ne julli jaamu yàlla xam nga xoolal sëñ Tuubaa koo xam ne lu mën a xew bu jaamu yàlla jotee nga jaamu yàlla ne julli bi may julli dama doon mépp waaye mënumaa sujjóot ndax tartar yi foofu de nee na soxna jaara Mariyamu ay waay ndeysaan sun waa sun de sun maam moo ne ubbët bunt bi dal ko nit xër ci biti ne ko dama liggéeyal yàlla dama liggéeyal yàlla sëriñ Cheikh Sall diwaan ci gàttal nee na bi ñuy mbugal sëriñ bi wala bi ñu koy natt yóbbu nañ ko ci barab boo xam ne benn waay moo gis barab bi dem xibaar ko tubaab yi ne leen man de gis naa barab boo xam ne kéwél moo fa jaarle kéwél jaar na fa léegi ñu lekk kéwél gi ci ay minit bu ngeen ko fa yóbboo mu faatu. ne tubaab bi ne nan dem seet bañ demee xool ba gis ko ba d'accord ci ba ko beneen tubaab bu soxat ne leen waaye ndegam lekk nañ kéwél léegi nañ leen xiifal ñu xiifal yëf yi juróom-ñetti fan Sëriñ Tuubaa ne bañ ma jëlee ba teg ma ca sàmm nañ sama jëmm ji ba gisu toolu bokk ci man dina matt mat bat yu tar yoo xam ne génn na ru ci biir yaram sëtt nee na jaamu yàlla jot na ma bëgg jaamu yàlla amu fu ma këpp sama bi ndax ñoom ma doon ñaan yàlla ñu randu ma jaamu fi yàlla yàlla mere ma dolli natt yo benn bu na juróom-ñeent ma daal di tuub daal di sant yàlla bi ma tuubee sant yàlla ma gis ñu njëkkante wàcc ci sama jëmm ji di wàcc ba set wecc di warante nangootuñ maa jege man a ah, yàlla léegi wan nga ma aw yoon lu ma bëggati ci sant laa koy ñoddee lu ma ragalati ci sant laa koy dàq moo tax nit yi Sëriñ Tuubaa yi xalifaam yi kenn ku ne jamono joo ñëw da ngay xam la gën a arrangé jamono ja nga awale ca nit ñi xoolal sëriñ Saliou bi mu ñëwee <laughs> màggali gaa yëpp sance na ko da wàcce da nga doon màggal sa baay nga ne waa mu ne wàcc koy kéemel te wut bisub sant <laughs> ku ëpp ijaaba ku ëpp ijaaba nga xam ne bu tàllalee loxoom ñaan yàlla nangu la muy ñaan yàlla sant ci gën a gaaw hmm? léegi nag sëriñ Basiru nee na bi bi yàlla noppee ci sëriñ tubaa dafa woo yonante bi ba ñëw mu ne ko sa waa ji noppi naa ci moom dara xajatul ci moom <laughs> mu daal di wax ne sëñ Basiru daal di wax noppi yàlla keroo ko ci sunu waa jooji moo tax kenn mënatu la def yéene jenn ju egg ci moom yéene ju ñaaw ak yéene ju rafet joo xam ne nit mën na koo def ci sëriñ tubaa nee na amatul sëñ Basiroo ko wax nee na boo nee damay liggéeyal sëñ bi mu ne ak jafe <laughs> loolu daa wax de ñu ne ko li tax mu ne ba yàlla noppee ci moom yéene ju rafet xajatul ci Sëriñ Tuubaa yéene ju ñaaw xajatul ci moom ñu ne ko aha mu ne boo amee sa yéene di ko rafetal ba mu rafet nga di ko defar ba mu baax ba eggale képp des ci sëñ bi ba jàkkaarloog sëñ bi ba eggale képp des ci yàlla da koy defaraat ba mu baax mu delloo ko ci sa kaw loolu fi indi seex yi di boo amee sa musiba ak say jafe-jafe yoo xam ne da nga ko bëgg jëf ci sëñ bi yàlla da seetaan ba nga jàkkaarloog sëñ bi ba eggale rek des ci yàlla delloo ko ci sa kaw mu daal ne moom mu daal ne waat naa mu ne sëñ Basiru wax saa baay ne ko waat naa ku du doon téeméeri at fàtte sa bopp fàtte àdduna fàtte say doom fàtte àllaaxira nekk ci Sëriñ tubaab ba def ci téeméeri at boo geesoo sa bopp doo ko génn loolu la sëñ Basiru wax saa baay bu loolu jàllee nag sunu waa ji sëriñ mu pàtte suñu waaju suñ jàmbaar jooju nga xam ne bi mu daata jébbalu ci sëriñ tubaa xaadim rasool mat nay at am ay taalibe yuy jébbalu ci moom mu ne leen dama leen di téyal borom jamono xam nga sëriñ tubaa boo ko bëggee xam mooy taalibeem yooyu ngay xool ku mel ne sëñ jéeri waa daan sëñ ma paate ak ñeneen di ko def ba mu bari lool mu fanaanoo seeti sëriñ tubaa jébbal ko boppam soxna ndaak fanaanoo di ko gént mu ni ko nëbb yaayam defe na da koy aaye fajar soxna ndaak taxaw ci bunt bi ne ko ma paate mu ne ko mbàkke mu ne ko dangay ngay bëgg seet sëñ Tuubaa moo tax ma doom ndey yooyu lu ñu mënta jur amut mu ne ko ko la ko wax mu ne ko dama koo génn mu ne ko waaw dama koo bëgg a mu ne ko damaa bëggoon jox la juróomi dërëm yii soo demee balaa ngaa joxe sa bopp nga jébbalal ma sëñ Tuubaa sama bopp ba nopp jox ko juróomi dërëm yi sëriñ ma paate ñëw ànd ak mbooloo mi nga xam ne déggaloon nañ ko te nangoo ànd ak moom jébbalu ci sëriñ Touba Serigne Touba nag da ko daa toppante ak di ko wàqante maam yi soxna si toog bi mu kanam Serigne Touba ne ko jébbal naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira daf ko ne ana soxna ndaag ya <laughs> ko Mbàkke mi ngi nii mu ne ko uhu nangul nañ ko ko bisimilah <laughs> mu daal ne ko Mbàkke naa la sama bopp àdduna ak mu ne ko nangul nañ la wax nga ko nag jëfa ci des déggal Serigne tubaa da ko daa toppante ak nit ñi de wax nga ko nag. jëf a ci des mu ne ko dinaa ko jëf mu ne ko soo ko jëfee dina ko gis <laughs> tàmbali nag nattu sëriñ bi ñu njëkk a togg ay ndogg ci Touba ak ci njaareem Cheikh Ibrahima Fall Lamp baabul Mouridine ak Serigne Paata ca lañ bokk Cheikh Ibrahima Fall di togg ay ndogg di yóbbu ci sëriñ bi naa mu daal defe naa ne wax mënut a yóbbu jëf yàlla bu fayee wax daal war naa fay jëf <laughs> Cheikh ma paate di togg ay ndogu di yóbbu ci sëriñ bi am na ku ma nettali nee na am na bis bu jub sëriñ tubaa mbooloo mu bari yenu bi mu jubee sëriñ tubaa dafa wax ne nañ ko gàttalul jëmm jooji xam naa ne day ma paate la waaye bëgg naa wax leen ne ku dajeeg mboom ku dajeeg moom mbooloo moom yi seen ñaq walaal la wala seen pënd ba dugg ci sa biir bakkan yi wala sa yaram mu laal ko mën naa dindi bàkkaaru juróom-ñaar fukki at ci nit <laughs> sëñ bi bi megsee dañ doon daw di dogale waa ka sëñ ma paate yi ba dañuy këpp ndab yi mujj na ay yat lañ yor di ko sàmmi lañ yor sukk na fi kanam sëriñ tubaa sëriñ tubaa ne ko ma paate yàlla gërëm na la mu ne ko mu ne ceel mu ne ko yonent bi gërëm na la mu ne ko ceel mu ne ko gërëm naa la mu soog ne ko askay <laughs> xoolal gaa yi sëriñ tubaa rek lañ gisoon mu ne ko ma paate mu ne ko mbàkke mu ne ko lalal sa kaala mu lal kaalaam mu ne ko tibbal suuf def ci mu tibb ñetti bar ci loxo suuf def ci mu ne ko bis penc da nga ram ruyu toll na fepp suuf yi te loo àjjana xat-xat da nga faram di faram ba desal fa ak mbooy mu nekk jàmbaar nag moom mu soo koo booleeg ceerno ci gàttal mu ne ah, man day ku toll ne Serigne Touba jaam bu mel ne man du fa tàmbali dara di ko bàyyi lam doon def ci Serigne tubaa mu di ko def waaye mu nekk ci Serigne Ibrahima Faati di fa def ba Cheikh Ibrahima Faty egg ci koo tudd ci àdduna bi lu mu baax baax baax dalay wax ndax mel na ne ma Faty Samb mu tudd nag manees na ko nag ñu tudde ko ko ñan ñoo ko ku tudde Cheikh Ibrahima Fall ñoom làmp Babul Mouridine ak taalibe yu mag yi ñoo tudd seex ma Faty manees na ko <laughs> lan moo tax ñu tudde manees na ko lu ceer na wax day wax manees na ko sa wax déet déet Cheikh ma Faty ci kanam Serigne Touba ak Thierno déedéet déet manees na ko rek soxna bu sa Mbàkke nee na saa baay day mos naa gis gàmmuy jub saa baay jóge ci Serigne Touba Xaadim Rasool ak i jooya dal ne nañ ma wool ma paate sëñ ma paate ñëw day raam ne mosumaa gis taxawaayu sëñ ma paate raam rek ne bu fekkee saa baay wax naa moom it day raam di raam ba gisatuñ ko waaye taxawaayam ne mosuma koo gis fi sa kanam saa baay ne Cheikh Ibrahima Fati daan ana ma paate mu ne ko maa ngi nii mu ne ko ah man de damaa jóge ca sama sang bu baax bu tedd ba sama sëriñ ba sama mag ja mu wax ma ci gàmmu gii nu jëm loo xam ne mosuma ko wax ci benn bés ak fam ko egg nag daal di jooy ceerno daal di jooy daal ne looloo tax ma bëggoon nu defal ko bés bii ni mu ko bëggee ni mu ko bëggee nag man damaa bëggoon nu gàttandu ko ñetti fan def ko gunge ko ñetti fan yonent bi ban bes la gane aduna ñu ne ñu ne alterné mu ne diber ju jot ci feeg maa ngi dund ak sama ginaaw nañ ko gam kérok bako ko joxe ndigal ak tay daaru musi diber ju jot dañuy gam bu bët muy taw ak muy naaj mu daldi wax na anama paate mu ne ko maa ngi mu ne ko demal wutal ma téeméeri nak yu top <laughs> te bobo gamu gaangi ngi mu ne ko ah mbàkke manes nako am de mu ne ko demal wutiko nee na bi mu wanee gannaaw sëñ bi dañ ko doon ree <laughs> lu ceer na wax mu ne manees na ko waaye gàmmu gi des ñetti fan ñu di ko sas téeméeri nag ci jamono ñu naqari ji mu ne manees na ko bi mu génnee jëm diwaan fanweeri nag lañ ko jox àddiya mu ne ana baame mbay ana ana ana ana sëti baame mbay ana ku fi de kenn nekku fi waaw ana baame mbay mu ne ko maa ngi nii mu ne ko fanweeri nag yi dem leen yóbbu ko diwaan nu tàmmalee ko suñ gàmm <laughs> Ceerno ak Serigne Touba lu mu wax mooy ñëwandoo <laughs> ba mu egsee diwaan dem déegum ñaari pël jébbulu kenn ku joxe ñaar téeméeri nag kenn ku joxe téeméeri nag ak juróom fukk <laughs> mu daal tànn téeméeri nag yi na soxla woon yet borom daaru daal ne gaa yi pël yi dénkaat naa leen li des ci seeni nag bu ngeen amee soxla nag na ngeen ko ci faj déggal gaa yi dañ ko re aka ñoo baax te gore ñaata manees na ko ngoog benn mu dem xumaag ànd ak Malick Cissé bàyyi Cheikh Cissé mii toog sëñ Malick Cissé nee na bi sëriñ ma paate egsee ci sëriñ Touba nuyu ko man mu bàyyi ma ca bañ gàcc wa muy nuyoog sëñ bi di waxanteeg ba mu moom ba mu yàgg mu ne ko ko àndal mu ne ko ànd na maa jëmm jee mu ne ko na egsi ne sëriñ ma paate nii la ma def ma xool ko mu ne ma nii ne maraam ñëw <laughs> nuyu sëriñ bi ñu ne ko waaw nii ji mooy nan mooy ñëwal nii bi mu defee nii baaraam mu ne ko raamal <laughs> gisal mag ñi niñ dégg waaj ne maanaam ba fi kanam sëriñ Tuubaa mu nuyu ko ma paatee mu ne ko mbàkke mu ne ko demal wutal ma lalu tagal gànnaar gànnaar demal wutal ma lalu tagal xam nga gànnaar amul bant de tagar lu muy doon ay ban sëñ Malick Cissé nee na ma ànd ak sëriñ ma paate ba tisbaar gisuñu benn ban ma daal di jooy mu ne ma Malick looy jooy ne ma ne ko damaa xam ne gànnaar amul bant te ki lay liggéeyloo laa xam ku muy liggéeyloo dalaa bëgg a añal te lim lay liggéeyloo doo ko mën ndax gànnaar amul bant dene sëñ ma paate na fiib ñandu ne ko yow da xamoo sëñ Touba xamoo ma it sëñ Touba lu mu santaane lu mën a am la man de lu ma sant dinaa ko def sëñ Malick Cissé nee na bi sëriñ bi waxee ak man lii ba noppi rek ngelaw egsi si lu lu bari didi ne bi mer li excès neena ba ngelaw dugg ci sama sama sama ne ma gëm rek yam ci àll àll bu lëndëm tërës neena sëñ ma na ma xanaa de ne ma ne ko waaw mu ne nan gajji ne ñuy gajji di gajji ba gajji lañ soxla woon lu ko ëpp ba takk aw say bay bëgg yanu ngelaw egsi waat ne ba gëmmaat ma mais ma ne ah borom diwaan lii lu mu man da jaaxle naa mu ne ko déedéet bi ma doxee dox ba xam ne mënumaa ñàkk a def li ma sëñ Tuubaa damaa dem Saalum àbb àll ba <laughs> yéen seen am na morooma <laughs> bi ma xoolee ba xam ne mënumaa ñàkk def li ma sëriñ Tuubaa ma nekk gànnaar gii damaa dem Saalum àbb àll ba bu njëkk moom dama ko doon indi di ko doon ci jëfandiku léegi dama ko doon delloo <laughs> moo tax Serigne Touba du nit ñaata manees na ko ko ñaar daa toog diwaan naan man duma lakk te ku ànd ak man du lakk moom sëñ ma faati du lakk te ku ànd ak man du lakk di ko baamu amoon na dof bu ñuy wax duudu mbay yoroon alal lool dëkk ci maxa ñu andil ko sëriñ bi sëriñ bi ne lu ma mus a def ab dof dinaa ko def dof bii nañ ma ko yeewal ñu wut ak càlla la yeew ko ci tànku dof bi def ab dàtt boo xam ne deux la jéng ko ci dañ ko daa yónnee nag ay miskit ay po lépp ndax dafa amoon barke milliardaire la woon mooy mu bari lool dof bi tuux ba noppi rek di dajale di dajale rek di dajale rek di dajale rek ba mu yàgg mu am dara lu mën a taal barab bi mu taal barab bi mu nekk barab bi de di di di di di di ndeysaan mu daal di yooxu ah sëñ ma paate taal naa mbaal mi ci sama kaw de tey di soomutuk wilaaye sa dof bi dana dee sëñ ma paate mi ngi sul turki dara bu weex tal daal na tëll baax ma mbay mu ne am ne ko lu mu yàgg-yàgg de bu ma kenn fekk ci mbaar ci biir waaxu rek na daraas ci biir mbaar ci sawara bi ku egsi na ana dof bi ñu ne mi ngi ci biir ana sëñ ma paate ñu ne mi ngi ci biir nga xam ne mbaar mi tàkk na lu ëpp ay waxtu kenn gisul sëñ bi kenn gisul dox wax nañ ne bi mu tëddee ci kawam boo defee nii lu mat ñaari xasab ci tànku dof bi nga xam ne ci lañ yeew càllala gi day sedd ba mel ni galaas su ko weesoo dafa soy ba soy bi fi la dajji ko mbaar mi tàkk ba def ay gilint sëñ ma paate jiitu di fàkk gilint yi dof bi topp ci sefonde ma ne dama ne malaan mi sefonde defu ko ñaataangoog ñetti mënees na mu toog fi barab naan cay lu man de lu ma soob mën naa ko ba ci dekkal nit <laughs> ah suñu paate nag kat muy bëgg a doy waar benn waay ñëw rek ñu ëndal ko ko rek mu faatu <laughs> ah sëñ bi waaj ne ko ah, léegi la doon waxtaan nga ne lu ne mën nga ko de téléwoo dara mu ne waaw téléwuma dara kay ñu ne ko ah kon nag si la wax ji mu daal ne ko ay eh, diw jógal mun a ñokkat duñu <laughs> kon nag sunu waa jàngoo waaw léegi nag ma ñëw ci sëñ si la diwaan gay nag ñàlloo borom fituwa borom fetal ga a saram ɗo kono ko jogu fal dece fo jogu fal amari gone sowel makkude jakkude ku yàlla bind bu la sëriñ Cheikh si la diwaan tëkkoo doo nelaw nena dafa wax ne li am ci serigne touba ñu ne ha ak lim am ci tierno mu ne mu ne ko da mu ne su udul neexee fee koy tek lima wutal sa bop kep ma def ci lima bëgg Ousmane jugal liggéey li yalla ak yonent ak Sëriñ mu ne duju mu doli aw dal doli ko wenen dal muy teureuf di dox di teureuf di dox ba séenatuñ ko fanweeri at ak ñett dundaat na ko fi sama ginnaaw baay keroog ba mu tawatee ma seeti ko la ne ma daay dee keroog ba sa baay defee lam def ci man ak tey maa ngi soog a wopp yow nag loo léegi dama bëgg wax leen ne leen Modou Kara Sylla du du wàllu yu moom ñëpp ma gën it man du ma dara lu dul jaamu Serigne Touba. billaay lu ma waaye def lu dul jaamu Serigne Touba duma la gërëm te du ma la sant as yow moom loolu dinaa la ci jox mbubb maa la ci ameel mbubb bu subaa waaw man daal nekk murid saalix laa bëgg a doon bëgguma doon leneen waaye sama pas-pasu bopp bi. sama pas-pasu bopp bii lu ma ci bëgg a def mën naa koo def kon nag sama gaa yu baax yii damay wax rekk yéen a ngi yokk nag ba ma dalee wax ak yéen ak tey yéen a ngi yokk waaye dama bëgg nag tey waxaat leen indi leen beneen kado xam nga kado bu ma leen bëgg indil yéen li ngeen bëgg ci loxol yàlla kese la ne muy man dara yor xaalis bu bari bu ngeen bëggee liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal ko loolu ngeen bëgg xanaa am xanaa am am am de bariwul am am jeex na sëriñ Seex si la diwaan nee wilaaya pas pas man na lo xamne wilaya du ko man wala su ko mané du ko sañ man nak sama pas pasu bop bi ci la leen di dimbalee si la ngaari baay daam sama paat sama oh oh oh oh oh oh oh oh ونان لي